dans dañ leen nous fàttali lu nu bokk d'accord mooy d'abord la commission des lois dafa am après commission des lois il faut que nous soyons leeral askan nous ñun ay député du peuple nous sommes députés, partis, nañ doon député parti wala député coalition ñun député du peuple jóge nañ si loi bu am solo boo xam ne dafay soppali bu lu rëy si dox doxalinu peuple bi nu ñëw leeral peuple bi loolu mooy sunu itte bu njëkk ñaareelu itte bi mooy seet na ni loi bi teguwul fenn fu wóor foo xam ni mën na jëmale kanam réew mi loi bi dara taxu ko jug lu dul fexe nu président Macky Sall gagné premier tour te nag loi day servir peuple day servir système démocratique mais loi warul servir ben clan warul servir ben nit lolo tax nak nini comme comme ñoom no wax ñom ño am majorité te demb majorité bobu la ñu imposer ba voter loi bi en commission li ñu déssé nak moy ñu wax ak sénégalais yi yeena nu folone jug leen taxaw ngén dem wane ni andul leen ci loi bi te bu ko ken voter démocratie bo gis au monde xana Sénégal mënu si yes, nak démocratie bo gis au monde peuple bi su àndul si loi bi fay dem sa kanamu parlement bi fatali député yi kat ñun ñoo leen foloon ñun ñun ngeen fi nekkal ñun ñi àndunu si loi bi dama leen bëgg wax aussi ni leen loolu lu jaadu la parce que commission technique yi la population yi amul droit fekkee mais examen en plénière ñepp tok peuple bi amna droit fekk ko su vous gisee le président Ablaye Wade le 23 juin mu autoriser nit ñi à assemblée nationale manifester parce que dafa xam ne loolu mooy wareefu démocrate mooy wareefu démocratie bu nu xañ sénégalais yi seen cër cëru sénégalais yi mooy teg nañ fa ay député su député yi bëggee jëm foo xam ni neexu leen su le euh, euh, peuple bi am droit dem manifester ñoom nañu wóolu seen bopp su fekkee ni ñoom nee nañu sénégalais yi ñoom la bayi àndal nanu bàyyi nit ñi dem assemblée nationale suñ fa gisee ñetti nit juróomi nit ñooñu daanu dellu seen kër tëdd noppalu xam ni kat peuple bi ñii la nu àndal suñu wóoloo seen bopp rek loolu la leen wax nag leneen lu nu def loo xam ne dañu jalgati yoon man juriste la amunu droit empêcher peuple bi ñu dem assemblée nationale te aussi li may lancer jëmale ko si armée bi jëmale ko si gendarmerie jëmale ko si police ay sénégalais lanu ñu noo sànni lacrymogène ñi noo dóor seeni rakk lanu seeni doom lanu te nu fàttaliku ni kat ñoom suñu paree danoo ñibbi seen kër suñu demee fekk fa seeni mbokk te bu nu ko nag ku nu juumloo ba def la loo xam ne jaaduwul ëllëg dañ lay seetaan ana policier yi doon wax ñoo rey diw ñoo def nanga ana gendarme yi ñenn ñaa ngi si kaso bi ñenn ñi wàcc nañ leen ñu xam ni kon dëkk bi dëkk yoon la falaa budda Ben nguur modul jeex qui nguuru yalla waye nak fala budde ku fi def lu jaaduwul jaay doole nit ki gaañ ka ëllëg falaa budda dem si fa mbaxane don ben ñu ba lolu bañ aujourd'hui euh, je serai très brève pour moi l'heure n'est plus à la parole nous devons agir nous devons agir face à qui face à un dictateur nous devons agir face à qui face à, à un poltron Aujourd'hui, le pays est en ébullition. Tous les, tous, Français sont en ébullition. Il a préféré prendre l'avion et sortir du pays. On peut le lui concéder puisque c'est un préfet de la France. Il est, allé retourner, il est retourné en France pour mieux, servir ses, pour mieux faire valoir ses droits. Aujourd'hui, ce que je veux faire entendre à la jeunesse, c'est que nous avons une mission et nous ne devons pas la trahir. On appelle à une manifestation, une manifestation pacifique comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Le, la peur a changé de camp, certes, mais nous resterons toujours des pacifistes. Nous resterons toujours des épris de droit. Et de ce fait, nous appelons la jeunesse surtout. Parce que notre avenir est nous. Est-ce que nous en tant que nous avons bàyyi kenn di de moral Bobu est-ce que war nañ en tant que des jeunes nous bafouer di hypothéquer suñu avenir politique di hypothéquer di bafouer suñu avenir si domaine boo laal mënatuñoo nous mënatuñoo liggéey nous ko sax déjà bu koy donc aujourd'hui ce que je voulais dire c'est appeler la jeunesse le jeudi 19 inchallah que tout le monde se tienne prêt Nous sommes tous dem assemblée ndaxte nag lu ñu mën daañ ko def bu mais on va pas les laisser faire on leur montrera aujourd'hui que nous sommes les dëgg bi ñoom ña nga xamante ni nañu ñoom ñoo ayati dinañu wal seen momé dinañ leen ni neexul moome gi baax na mais dara xeeñu si neex te li koy wane mooy ndaw yaa ngi jooy askanu Sénégal ñu ngi jooy et le 19 incha allah dinañ ko wan ne que moom li muy wax gëmu ko ña koy xelal aussi la ñuy def ay cuune lañ te nag Sénégal du dëkk boo xamante ne cuune da koy yor. tey jii képp kuy wayjur yaa ngi am problème ci biir réew mi ku dëkk ci biir réew mi am nga souci am nga jafe-jafe ndax fii nga dëkk amuloo faneen te koo yeewi rek mu dellu fa mu jóge woon bi jafe amee yoxosu na fa mu dëkk. fa ay intérêt nekk ña liggéeyal foofee la féete foofee la daw làqu ñun ñu fi des ci réew mi nag ñu nekk si jafe-jafe mu ne yéen police yéen gendarmerie yéen armée yéen sénégalais yi reyante leen débrouillez-vous kon ñun nañu nandite nag ndax moom comme nekk na ponkalum ngaaka boo xamee ne xamul lan lañ ko war a wax mu yaakaar ne mën nañu dóor marto nax ñu réer yi bàyyi ñu ñu reyante suñu biir dinañ ko lijjanti ba bu ñëwee moom dina xam fan lay dugg loolu aussi dafa war a leer nañ te sëñ Mbay Jaxate mu baax ma dafa wax ni képp koo xamee ni bu neexee nga ñëw bu naqaree nga daw ku la am amul ku la ñàkkit ñàkkul na sénégalais yi xam ne amuñu président de la république amuñu nit koo xamee ne am na souci sécurité doomu aadama yi képp koo xamee ni candidat nga ci Sénégal te fés sàkkal na lay pexe génn na Karim Wade sànni ko ca biti te mënul wax kenn lu tax mu génn jël na Khalifa Sall ni ko rap ci bir kasso bi muy tapale tay tay gu bon go xamé ni mom ak nafiq yi mu àndal ño dugal lool te loolu it dafa wara a leer feso yi li la bu len kenn gennel parrainage mu melna parrainage rek am ci réew mi dedet juróom benn atangi yo xamé ni da ngeen di dajale jëf yi Macky Sall yëpp boole kak parrainage bi so koy gis tay tayam limu bëgg moy tas réew mi limu bëgg moy yàq élection yi limu bëgg moy war ci suñu bopp te ak diisaayam xajoowuñu ko duñu ko nangu kenn duñu war li ñu bëgg mooy ku ñuy dimbali ku ñuy aaral ku ñuy sàmmal ku ñuy defaral waaye ku sàlloo fas yéene fooy nit ñi doomu koo mën a doon dinañ ko jëflanteeg yow te képp kuy sénégalais na nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew mi nga nekk ci département wala nga nekk ci biir Dakar ak foofu mën a nekk bu bis baa jarul kenn di ko wax moroomam bu ñëpp génnee xeex bi jeex ci tàng-tàng bi bu ñëpp génnee xeex bi ci taasi lay daal di dakk te noonu lañ ko war a defee ndax man gisuma lu war a mën a tax Abdoulaye Wade ak kilifteef ga mu amoon ci réew mi ak cër mu amoon ci réew mi ak liggéey ga mu defoon nangu lu ñu ko ko woon bëgg ko ma Macky Sall mii nga xamee ne lu ñu am mu jox ko tubaab yi duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg te tey sénégalais yi ñooy wax du ay député du ay politique du dara ay sénégalais yu épris de justice yaakaar seen réew am njàqare te pesum ngaam nag borom moo koy fayul boppam ministre bi mu ñëwee la ma ko njëkk laaj dama ne ko art maanaam art constitution bi article trois am na juróom-ñaari professeur yoo xamante nii waxtaan na ma ak ñoom mën naa si tudd professeur Ngouda Mboup nee na loi bi Macky Sall indi du loi boo xamante ni waroon koo mën a jàllale loi bi baaxul anticonstitutionnel la mais bi ma ko waxee professeur Madior Fall daf ko sëgg mën na ko gàcce la si yow say mbokk ni yow jàng droit comme yow wax ne loi bii nga indi loi bu baaxul la nga ñëw ba ko imposé Macky Sall ba ko imposé député yi nga xamante ne duñu woote dëgg ñun nag maa ngi tàllal ñëpp loxo di leen fàttali waxi sëriñ Abdoul Aziz baax bu réew mi tolloo fii am na ñu war a jóg lu xew ëllëg nag ñoom ñoo responsable Macky Sall daw na dem France làqu ji moo ko njabootam bàyyi ni fi ñun nañu xam alxemes na leen képp koo xamante ni force de yi violé nga maanaam droit dans le traduit dans la justice C'est yi lan la yóbbu te yaa mag Sall yéen fi ànd kon ma ngi laa si appel ñep xamni mi ñoko bokk kenn c'est un fichier des électeurs pas des parrains nous ne sommes pas des parrains buñu ñu bindu demuñu bindu pour parrain donc est-ce que sénégalais sont prêts à parrainer té su sénégalais bi ne duma exposer sama données personnelles et qu'il y a plus de la moitié des électeurs mais on se bat sur quoi pour dire que lii parce que ki nga xamné il a eu 18 mois pour te faire des cartes d'identité elle est nekk carte d'identité yi ngay pour que mu contrôler ko en trois semaines est-ce possible non non mënu ko def donc pour ñun y indi un problème donc il faudrait que ñu def la part des choses on est dans un fichier électoral c'est pas un fichier de carte d'identité nationale parce que mënoon nañ ko def c'est des fichiers différents un électeur c'est un électeur le sénégalais musul que parrain parrainage bi c'est compliqué est-ce qu'ils l'ont accepté est-ce qu'ils vont accepter de parrainer est-ce que est-ce que est-ce qu'ils ont réponse à ça le gouvernement donc nous, ngi dugg ne rien tester, ils savent même pas si le sénégalais comprend parce que maay dëgg kenn kenn muy wax radio tey mu ne benn femme moo ko na ne eh, parrain mbande si mbëri laa ko ak ay euh, soirée dansante lan mooy parrain bu ñuy wax nii si Il y' a problème. donc voilà vraiment ñun message boobu la ñu wax jox que dans le fichier des électeurs nous sommes des électeurs nous ne sommes pas des parrains. su donne parrainage le, man de sama je suis pas prêt à le donner même à Khalifa comme ça naan yóbbu ko fenn moo je ne wóolu ma parce que ñu koy contrôler wóoluma len lan lañuy doyé sama date de naissance sama numéro carte d'électeur sama signature sama prénom non ils vont faire quoi demain Ben, ñu mo kasso parce que ñu bëgg a tëj ñëpp Idrissa dafa bëri wax bon et là ça c'est lui qui a signé ici on le met en prison pour ça j'ai pas confiance en non bon et puis pour le conseil constitutionnel c'est la même chose donc pour ça moi-même je pas parlé ñetti élément yo xamné feñu ci premier élément bi damay faral di dégg Macky Sall di wax affaire majorité je bëgg leen wax ne leen Macky Sall amul majorité mode de scrutin bi est def bu proportionnel intégral la kon opposition 84 députés et mu 81 députés leen bëgg au suffrage universel ils ont eu 49 et les autres ont eu 51%. Donc que Macky Sall arrête de nous parler de majorité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mode de scrutin qui est unique. Le Raougadou, qu'il a 75% des députés, qu'il doit pouvoir faire ce qu'il veut. C'est ce que je veux signaler parce que quand même dañu toll fu nga xam li gagné di wax comme Aïda Mbodj li doon wax Macky Sall lu mu wax wax affaire mbeur léegi waxi mag dem na ndañtaali wure dem na këng deuxième élément bi ma bëgg a jëkk a wax mooy euh, Sénégal dañuy wax crise des valeurs grand place boo dem naanukaaye attaaye boo dem affaire ngor la ñuy wax Macky sàll bu gorewoon lii mu nar a teg peuple sénégalais bi du ko ko teg François Hollande ca France dane Si je n'arrive pas à vaincre le chômage, je ne me présenterai pas. À quelques mois des élections en France, il n'a pas pu vaincre le chômage, il ne s'est pas présenté. Macky Sall a des sondages qui lui prouvent qu'il va perdre. Et il ne veut pas partir. pour aller très vite c'est ça l'origine or non. lan devoir quel est son devoir lan en tant que président de la république c'est de permettre au peuple sénégalais, mais de choisir qui il veut. C'est pas à nous de l'op... Non, ñoom seen warugar mooy créer condition idéale pour que peuple bi seet ki mu bëgg a mu tànn ne yow yaa may jiite ba élection ñëwaat mais léegi lii nuy gis di ko wax guddeeg bëccëg mooy lan mooy ñoom taxaw nañu ci loolu war am te ñu war koo def ñoom duñ ko def dañu taxaw pour def leneen alors li fi je crois mooy euh, bu ñu nous dañoo bëgg économiser candidats yi su bare ñu ne leen bulletin unique ñu ne noo temps ñu ko kooku foog ñu seet ko mais Guinée bi nga xam ne ans d'autocratie et de dictature Guinée en 2010 bulletin unique la ñu voté en Guinée alors ñu bëgg ne Guinéens kon ñooñu ñooñu ñooñu raw ñoom mën nañoo wate bulletin unique waaye nun foog nu jàng ko xam nga ne loolu taxawut du argument en réalité euh, ce qu'ils mooy euh, imposer Macky fi may jeexale mooy maa ngi fii ak le programme des enseignants pro enseignants yi dañuy débrayage defe naa tey la ñu tàmbali ak suba ak ginnaaw suba ba vendredi ñu def grève générale man je crois que leader politique parce que réew mi que que ci nekkuñu ci situation normale on est dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle position exceptionnelle moi ce que je propose aux leaders dama koy wax parce que c'est ce que pense mon parti politique on doit donner la main aux enseignants ñi ngi ñafé guddi ak di on les a massacrés à Ziguinchor et ils vont continuer à massacrer. On doit donner la main aux enseignants, nous devons qu'une seule et même lutte, qu'on aille à une grève générale et à des journées villes mortes. Je vous remercie.